Seydi Gassama di coordonnateur a Amnesty International Sénégal moom nag mu ngi jaajëfal kay day si am démb ba sax qualifié ci huitième de finale coupe ba ñu fàtte Pape Alé Niang ak yeneen activiste yoo xam ne ngi ci kaso te sax mu jàppee ne la tax ñu yóbbu leen kaso loolu jar ko moom nag nee na kon lii di sport daal ko ñu tax. ba ñu fàtte mbirum Pape Alé ak yooyu activiste bu jàpp ne kon dañ leen war a libéré euh, nga xam ne moom mooy euh, victoire bu Sénégal bi neexoon na lool ba météo yu bëri ci Dakar ci Sénégal nemmeeku na fi nit ñi génn kon di fësal seen euh, mbégte boo xam ne kon am nañ ko wante nag dafa am lu ca xew loo xam ne kon lu diis la muy fële ci gannaaw bi nga xamee ne kon daal nit ñi ñu doon di zibilé ko manifester dafa am benn charrette boo xam ne dafa dal ci benn xale ba gone nga mujjee ñàkk bakkanam xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy fële ca Côte d'Ivoire foofu nag bésu tey bii la ubbi procès bi nga xam ne kon mooy mbir ma xewoon ca Grand Bassam ci 2016 gannaaw bi nga xam nag ñetti dafa ñaaw dañoo yoroon ay ngànnaay di tiire ci ñi nga xam ne ñoom ñooy. Euh, nit ña foofu sax bëri trop li nga xam ne moom ay étranger ñu jotoon ci faat nag lu toll ci dix neuf personnes foofu nga xam ne sax euh, comme mu ngay am ay restaurant gi euh, hôtel euh, dañ fa bëri woon boobu leen pensé kon ñi nga xam ne ñoom lañ ca tuumaal bésu tey bi ubbi nañ ko fële ca Abidjan xibaaru bitim réew it benn lay doon muy nag fële ca Chine ka fa nekkoon jiitu réew diggante 1989 jàpp 2000 di wuyoo euh, Xiyaam Zemin moom moo génn àdduna nag euh, gannaaw bi nga xam ne sax euh, am na quatre-vingt-seize ans. moom sax ñu jàppale kon jiite na réewum Chine si jamono yoo xam ne am na solo lool jamono yooyu yoo xam ne kon mooy jàpp 1989 jàpp 2000 kon mu doon ko te sax amaloon fa ay coppite yu am am solo. moom nag ñu jàpp ne sax kon jamono jooju mu jiite Chine nekkoon na jamono ju am solo ndax nag indi na ay coppite yu bëree bëri ci dëkk ba muy nag jamono jooju diggante 1989 jàpp lii di 2000. xibaaru sport lañ koy jeexalee gaynde Sénégal nag démb dañoo am ndam ci kaw Équateur gannaaw bi ñu leen dóoree ñaari ball ci benn loolu sax tax ba ñu qualifié ci li nga xam ne moom mooy huitième de finale. bu coupe du monde 2022 bay xewee fële ca Qatar ñoom gaynde yi nag dimanche bi ñu dëgmal ci lañ war a dajeek nga xam ne ñoom ñooy waa Angleterre ci boobule huitième de finale ñu leen di ñaan ñu ca ndam ngir qualifier quart de finale loolu ñu ngi la cee xibaaram seen teewlu lu jox la jël ñoo ngi